kwamtar da ayyari daga jangul khila so zai bashi buntum mu zainatu mai min tsiri maknawo يا سيدي خالي وشيخي ووالدي ملاذي وحسني مو مرشدي ووسيلتي يا سيدي خالي وشيخي ووالدي ووالدي منامي وعسري مرشدي ووسيلتي يا سيدي حبيب وإسمي مرشدي ووسيلتي يا أصيلي خليلي وشيخي ووالدي في مالك من مولانا واسمي مرشدي مرشدي ووسيلتي يا سيدي خالي وشيخي ووالدي يا سيدي خالي وشيخي ووالدي ملاذي واسمي مرشدي ووسيلتي آه. الى الملك المعبود جلال وأفضل مبعوث إلى خير التي محمد المختار نخبة هاشم وسيد الارتجال أعظم خدوتي إمام عبدنين بايم خديم أبي العباس وارث سري خليلة أسار طريقة عمدتي يا سيدي خالي وشيخي ووالدي وسينتي يا صيدي خالي وشيخي ووالدي ووالدي هادي واسمي مرشدي ووسيلتي صلي Say the word. بعظمه بنا وصليا يا إلهي واجزيا يا النجري أنا وأمرنا مغتار في المصاب وفلة جوب وفلة وصليا يا إلهي وذبيا شمس وعلى محمد مهجر في سيد الحادي مالك ثم الموقفين بشد الفائقة ضعبته

العرس لله كل الأيمن وصليا يا إلهي وجزيا أبدا مصرعا محمدا مشار في القيد مصرعا زاد المواهب أسوى ما أنوار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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الوجود وعالم الشهود سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكو تلسبكتاترو مالكيا تي في ليرو مودو نيغي ديلو سي في سي سين ايميسيون يونو دايرا بيغا خامتاني موم لاني لاني توبال سي غودي ادومو بو جوت تاي ناك غيناو بو زياره كيغا خامتاني tey moom la yàlla teg ci bopp tarixa bi teg ko ci bopp njaboot gi muy suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour al ñu ñaanal ko yàlla na yàlla yokk fanam yàlla may ko kattan mu mottali naal yi nga xamante ni naal na ko ci xadara maamam bii te baayam yu tedd yi jaaroon fi magam yu tedd yi jaaroon fi ñu jël nag suñu ziyaar ci mboolem njaboot Seydi Hadji Malick jaarale ko ci moom mu joxal ñu ko mboolem njaboot ci Seydi Hadji tey nag seen émission yoonu daayira mu ngi ànd ak fédération des daayira Tidiane de Maliki de Malika yi nga xamante ni tey ki leen fi teewal mooy suñu mbokk Serigne Mansour Diagne aju ci fi nga xamante ni mooy daayiratul axiyaar mhm. ànd ak El Hadji Malick mi nga xamante ni mu ngi ànd ak groupe bii nga xamante ni ñoo topp bindu mag ñi di ko animé ca gox ba mhm. di bëggal nit ñi ci yonent bi waaye di delloowaat nit ñi tooyal xolu nit ñi ci Cheikh Tidiane Malick ak njabootam yëpp rawatina nag Cheikh Ahmed Tidiane kon nag dañuy dalal ki nga xamante ni mooy suñu mbokk Serigne Mansour Diagne mu nuyoo dugg nag ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi incha allah. Ah, alhamdulillah alhamdulillahi alladi jaala alxaqiqata almuhammadiyata mm-hmm. aslul mukawinaat ومستمدا لجميع الموجودات نحمده ونستعينه سبحانه هو الله الواحد القهار الذي قال في محكم تنزيله نون والخلم وما يستور ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وصلى الله وسلم وبارك ومجد على البرق الأستعي بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني بروقا تسطع في قلوبنا سطعا وتتلمع فيها لمعا وتضيء فيها نورك اللامي الذي ملت به كونك الحياة وامكنة المكان وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن البرزق المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس المعالي شيخنا التجاني شريف بدر الدياجي كوكب النوراني قطب الزمان منبع العرفاني ومعدن الأسرار والعرفان سقانا الله من بحر العرفان بأعظم الكؤوس والعوان ورضي الله أيضا عن خليفته ووارثه ووارث سره الذي قال في حقه الشيخ سيد أبو بكر سي رضي الله تعالى لولاه ما استخذ الهدى ويمد من دمعيه للبدر المنير المشفق الحاج مالك ibnu Ousmane taaba alayhima rahimu rahman mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen bége di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa comme ni ko suñu mbokk mu tedd mi waxee Seyid Mouhamadou Mbuub muy xalif général de Tidiane suñu bàyyi Seyid Aboubacar si Mouhamadul Mansour ñu nuyu ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla ci naal yu tedd yi nga xam ne naalal na ko xadara maamam kër maamam kër Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla may ko mu mottali ak jàmm mottali ak sago ak képp ku mu ko bokkal ak njaboot gi topp ci ginnaawam yëpp waaye di nuyu itam suñu buntu ci ñoom di suñu sëriñ suñu wéyjur boole ñu boole ñoog moom muy sëriñ Abdou Aziz Al Amin ci doomam sëriñ Moustapha Sy Al Amin ak mbokk yëpp ñu boole leen nuyu di la delloo nuyu bi sëriñ Mouhamadou Mbuub ak mbokk yi nga xam ne ànd nañ ko ñoom yëpp. ñëw tey ci turu da fédération des daayira Tidiane bu Malika. ànd ak suñu mbokk yu tedd yi di Xaaji Malick Dieye. ak Seydi Alen Ndiaye. ak Seydi Assane Seck. ñu ñëw ci bërëbu tedd bi di Almalikia TV. ngir waxtaane lu jëm ci yoonu daaira yoonu daaira nag muy émission boo xamante ne xam nañu ko fii. ci télé bi nga xam ni mooy leeru Seex Seydil Xaaji Malick radiyallahu taala anhu. Seydi bismillah. waaw jërëjëf sëñ Mansour. Diagne ñu ngi rafetlu kàddu yi nga xamante ni tey yaa ngi ko yëkkati jëmale ko ci xadra bi yëpp waaye jëmale ko ci mboolem jullit mhm. émission bi nag tey dañu bëgg a delloo si rek li nga xamante ni mooy njàngale Cheikh Seydi Hadji Malick mhm. ci siyaasaam mhm. ci d'arab. Mhm. ci ni nga xamanteni nonu la liggéeyee mhm. ba tey mu proposer ay solution mhm. ci jamono bi nga xamanteni ni Sénégal jaxasoo na te li ko du lenn lu dul rek ñaka a ci jangale mak ñi ak teguwaat ci yoon bi nga xamanteni mom la yonent bi tëral te mak ñi nàmpoon ko ci mom dañuy wax ni laqad kaana lakum fihi rasulullahi xuswatun xasana mom moy suñu meen mom yonent bi waye moy suñu wène ci mom la mak ñi nampé li ñu tëral waye bala ñu dugg ci lolu dañu bëgg rek nga ñëw tuuti mhm. ci daayira lan moo taxoon Serigne Babacar si sos ko mhm. ci jamono boo xamante ni mhm. fekkoon na réew mi jaxasoo fekkoon na lu bëri yàqu mu indi daayira pour fédéré nit ñi waaye indi daayira pour mu fay mbuusu yóbbal indi daayira pour dabaatal li nga xamante ni mooy xam-xam fii ci réew waaw jërëjëf Serigne ñu ngi leen nuyu baax di la ziar comme émission bi pour wi wuyu na borom muy yoonu daayira daayira nag وخمغا كو سانخ ماغوم يالا دي ولي كامل دي قطب زمانه دي شيخ سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه موكو فينال تي جامونو موكو اندي تي جامونو غيناو بيم ووتو بيم ووتو شيخ سيد الحاج مالك غا خامني شيخ سيد الحاج مالك لغييم تريلينم يالا داكو ماي مو فورمي ني مو فورمي دنك يي مو فورمي ييب فورمي لين تي دارام تربيه لين ديفار لين سيد ابو بكر بيم ووتو يالا دوغال مو تي اورغانيزاسيون mu indi li tudd daaira mhm. daaira ba mu jot njëkk a tudd tey mhm. ñu tudd ko au passage muy daairatul kiraam mhm. mu nekk daaira bu nga xamante ni dafa regroupé woon les cadres supérieurs yi nga xam ne nekkoon na ci wàllu xadara bi nekkoon na tamit au niveau de l' administration daaira boobu tey ki ko jiite di sunu bàyyil xaaji Mansour Diagne nga xamante ni moom moo ko jiite mën nañ ci tudd tamit daayira yooyu ñoo mag ba jur li ñu tuddee fédération des daayira Tidiane Dakar et banlieue xam ne mën nañu tudd suñu mbokk suñu frère سيد عبد الرحمن باي nga xamanteni lolu loolu dafa wundu li nga xamanteni moy ndono mag ñi nga xamanteni ni ñi li ñu nan watil ka asaruna ta dullu alayna fanzuru ba'dana ila al asari wallahi ma ngi liggey nan ba fi mu delu ci li Serigne Abdou Aziz alamin waxon ci ni fi dañu leen di gunge ndax kuy gunge du yegg suñu léré ni kat li nga xamanteni moom la leen di jàngal di ci nampatal di leen ci tëral suñu leera ni mat na ñu dem bàyyi leen ak seen jamono yaakaar naa ku tudd fédération des daayira Tidiane Dakar et banlieue te ñoom Hadj Abdourahmane Pay nekk ci yow mii sax nga nekk ci ñun ñëpp nekk ci yaakaar naa kooku doy na misaal ci wàllu daayira daayira nag sëriñ Babacar da koo firi ndax dafa bokk ci juróomi principe yi mu tënk ni ci la teunk ay mbiram muy sunu diine sunu tariqa sunu métier sunu daaira sunu yoonu tiwaawoon daaira nak nek ben cadre cadre bu nga xamanteni day motali tarbiya day motali tarbiya nit ki ci zahiram defar zahiram ba mu jub ak boppam waye ci batinam rahas jikkoom defar jikkoom waye organiser nit ñi tamit ci yar leen ci yaru tasawuf bi nga xamni mom la mag ñi gis ni moo meuna tax nit من لا يلا بقى تي جامانو سير الحاج مالك سير شيخ احمد التيجاني كي طريقة تيجان موي طريقة بو خم دفو تنكو تي تصوف لا تصوف مملا لا ماغي غيس ني لا بو خامتين بو نو تي تنكو دي نانيو نيت نيال يلا بقى مو ملكو اسكي لي ريبريزونتي دايرة نك بو نكو وخي du li xaw fen ci jamono legui du fon color mhm. du li bokk ci mbumbaay mi mhm. ndax si la xaaji Maalik moo nu jàngal ni mhm. wa zahirul qasidi mhm. laa yu'tabar aji feeñ jik sóobu kenn xemeemu ko sol sa mbub mu rafet sol sa course gu rafet yor sa course gu rafet tayam ci tuur wi rek déedéet daayira pratique la pratique la boo xamante ni li ñu Serigne Cheikh jàngaloon ni un club mystique où on forme continuellement les athlètes de la religion qui nga xamante dana mat yàlla njabot ndax Serigne Cheikh nee na ulah dika fi ta'addudi sa'yihim umana hadha al'alam al jismani al fa annahum fi zikri wal adab alladhi fi zikri min mala sama ruhani fa ka waqt an-nashati li ahlihim wa li qawmihim bi wazifati sultani wallahi nee ñi nga xamni ñi ngi leen yar ci daayira bo leen gisee bu ñu toge di wétal seen borom ci yar bi nga xamni def nañ ko ci ñoom. yar leen. bu leen gisee da ngay am da ngay naan ni ay malaka la ndax seen wax ni mu sellee. deug la. fa ka annahum fi zikri. wal adabi alladhi fi zikri. min mala'i samar ruhani sen sen ruhani dañ ko yar ba malaka yi rawuñu leen. waye nak فكأنهم وقت النشاة لأهلهم ولقومهم بوظيفة السلطان نيور أدنى ديكو كوندوير ديكو دوخال دي جيل لي بلو غراند ديسيزيون نينا بو غيسه نجابوت غيغا خامني يارال نانكو يالا تي بير دائره بو لين غيسه با نيو ген دي دم با ген سي جاكاي دي دم كوستيمو كرافاتو nga فك leen تي بير bureau yi ci les plus grandes instances boo leen fekkee da nga naan ñii ñoog ñoog parce que rawuñu len mhm. rawuñu yalla waye deg nañu ومناؤ هذا العالم الجسماني فكأنهم في ذكري والأدب الذي في ذكر من ملأ السماء الروحاني والله لون نك تربية بابو تربية لبو خمنتني تربية لبو طريقة سيد شعب الديان اندي نح يسقي المريدين من كأس الوصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه ndax al muridu mooy taalibe taalibe nag liñ koy nandal kasul wusuul fexe mu egg ci yàlla dañ koy naanal kaas boo xam ni mooy tax mu egg ci yàlla jubóog yàlla ilaa naxwil muraad yi ndax al muridu mooy ki namm ki mu namm egg ci moom mooy kan ay mu almuraad muy yàlla si Abubakar waxam jooju dafa tënk lépp almurid ak muraad waaye ci seen biir. ci ñett yooyu am na bu leen ñetteel muy marit ki eggul ci yàlla. mooy dafa feebar dispositif biy dékku yàlla ci moom mooy yàqu. dëgg la. li ngay doyee sëriñ nag. li ngay doyee nitu yàlla. mooy dispositif boobu nga xamante ni. mooy permettre nga mën a egg ci yàlla ñu naanal la ko. loolu la nit di doyee sëriñ te sëriñ boobu day fekk mu doon yonent bi ndax mm-hmm. asheykhul kaamil. mi qawmihi كالنبي في أمته فمبايعته كمبايعة النبي اسكي سيرين بومات سيرين تي جامونو دا فا ملني كي يوننت تي خيتام بو جايانتك موم دا فا ملني يوننت بيغا جايانتل مو تخ سيد حاجي مالك باكو واجي ني اه خنا يو ولي مرسل غام ديت مانيكو خاوما ديت خاوما ولي مرسل لام ديت واي وا سينيغال جي ولي مرسل لا تي نيوم والله Sida ji yi moomu nag. ñuy waxtaanee. muy ndënk piir nga xamante ni bu feeñuloon ci dëndu Afrique bii. nga xam ni bu feeñuloon ci senegal gii. lam mu wax yonent bi danoon daal. law lam yalux fi fadail kawni. talaatuhoo tabaxal bariyatu fi dalmaa iyallaahu. ala حبري ما نيو الله الا تلامير لذل عقبنا عثمان سيدي مالك سري هادي توري رضي الله تعالى عنه ما خلو الشيخ سيدي الحاج مالك تملك هل الشيوخ نين سيرين سيب وان جلت دم مغنا مراتبهم سن مرتبه يا الا التلاميذ دي مجلول لك اي طالب اذا عقبنا عثمان بو داك سيدي الحاج مالك ما يوسي داك مالك Maodo moomu nag. nga xam ne bu feeñul ko nag ci jamono. loolu nag du waxu fanatique. daf ko def daf ko liggéey. ndax ataawa biqaaw suudi. dulman wa zulmatun فقام بشيف الهم بالحزم مجرد فجاهد فيها بالسياسة وندى وعلم وحلم فاهتدى كل اهتدي فصارت زوايا في قراها جميعها ملاء بفوج راتعين وسجد لأصواتهم في كل يوم وليلة دوي لدى كل زوايا ومسجد. tey sëñ Alioune Guèye foofu nag ngay jaar rek dugg ci fi nga xamante ni mooy siyaasa ginnaaw bi nga jaaree ci daara Cheikh Seydi Hadji Malick nga xam ni moom la sëñ Alioune Gueye di junj nga indil ñu nag siyaasa Seydi Hadji Malick bi nga xamante ni def na ko ci diggante ñaar yoo xamante ni bi mu koy liggéey moo mënoon na bal tàkk coow jip waaye liggéey na ko ci diggante tubaab bi ak ñi ko waroon te duñu jullit te fexe na ba lu mu bëggoon muy daara yonent bi dekk fii ci réew mi ak xam-xam te coow jibul bal tàkk xam nga Cheikh Seydi bi wax ko muy bi zulmun zulmatun colonisation bi la coloniser te colonisation forme colonisation bi nekkoon ci forme colonisation di gën a yées ci la colonisation française mooy forme parce que ñoom bu lay coloniser yam ci la mais dañ lay jox culture jox la seen diine. jox la seen yépp boobu benn obstacle la boo xam nekkoon na ci la colonisation. beneen bi muy beneen poids bi fi fekk muy ceddo gi. nga xam nañu ci si da Hadj Malick xool nag comme des la comme moom jàngalekat la. comme moom borom programme ndax dafa doon yonent bi. Tidiane tubaab bi xam na ni su ko toppee ci stratégie tubaab bi. Mhm. tubaab bi dana ko tardeel. dana yàq liggéeyam mu wëlbati siyaasaam. que bi say fil mi. Mhm. mu orienté si mu orienté politique am du jàmmaarloog tubaab bi ci wàllu bataille armée. Mhm. parce que xam na ni bataille armée daf koy tardeel. mu jàngal nit ñi. yar leen nekk ci biir tubaab yi. teg daaram ci seen buntu. di jàngal nit ñi tubaab yi yëguñu li muy def.

mësuñu ko yàqal dara waaye mësul tamit siyaasaam ci ñoom du sàkku ci ñoom dara mësul sàkku ci ñoom terrain mësul sàkku ci ñoom médaille mësul sàkku ci tubaab yi dara loolu Serigne Babacar Sy moo ñu ko nettali ci lettre bu mu bindoon zawiye bu Dakar zawiye bu Dakar ginnaaw bi fi Seex Sidil Haaji Maalik jógee Serigne Abdou moo ñu ko nettali bind na ko sax ci Al Fayyad mhm. ci bi muy def ak Seex Seetu Seex Sidi Abubakar bi gandiku dafa loolu indi lettre bi Serigne kër bindoon zawiya bu Dakar bi nu bindee lettre waa chambre de commerce. ngir sàkku ndimbal ci ñoom. Serigne Babacar daf cee leen bind lettre bu tàng jër wala ni siyaasa kër Cheikh Seydil Hadji Malick nekkul woon Seydil Hadji Malick siyaasaam nekkul woon sàkku dara ci tubaab yi. mosul ut dara ci tubaab yi. siyaasaam moo nekkoon tëral diine ci seen biir. li ñuy def nag mu laaj collaboration citoyenne. Maodo sax ci ma sa d'accord ci ngay dégg keroog ba fièvre jaune ba amee ca ndar Cheikh Siril Hadji Malick ba waa géttu ndar lànk ni duñu ñàkku Cheikh Siril Hadji Malick trois mois administration francaise ñi ngi leen di topp pour ñu ñàkku ñàkkuwun Cheikh Siril Hadji Malick de par ça euh, li nga xamante ni yàlla may na ko ko ci citoyenneté mhm. bi ko tubaab bi saisiré mu ni leen kat yéen dem ni waa baax na bi mu demee ba ci géttu ndar ak si ñëpp di ko gàttaru mu leen taxaw leen ndax li nga xamante ni moom la tubaab yi di sàkku ci yéen sunu biir gi yaram kese la fekk boobu lu ci njëkk gétt gouverneur daf ko ni ah géttu ndar kat dinaa ko bo dinaa ko dina ko taal dinaa ko lakk te jox naa ordre service service d'hygiène ndax trois mois ngi ni ñu ngi topp ci ñoom di leen demander pour ñu ñàkku ba sonn ñàkkuwun mu ni ko boo ko defee daa torox daa alku yow France yar la jàngal la yaakaar ni nite nga fekk ci colonium yi gën a dellu ginnaaw mu ni nga téye ci seen loxo ngir ñu jóg nga di leen sànq di leen rey boo ko defee da nga am woy wu dootul fay mu ni ko kon nu may def mu ni ko décision yi nga jël da nga koy dindi ba noppi ma ñëw wax la nooy def dem ak përëgëm ni ñàkk leen ma bi mu demee ñu di ko teeru mu leen ah dem leen ñàkku ji ndax ñàkk yi ñu ñuy wax ñàkk yi ñu ñuy wax suñu wér gi yaram kese la kon Cheikh Sidi El Hadji Malick ak tubaab bi dafa nekk une collaboration bu nga xam ni ci dans le cadre citoyen ci loo xam ni leer na ko ni li ci cadre askan mën na dimbali aw askanam loolu loolu moo ko di mooy musul sàkku ci ñoom dara musul am ci ñoom dara musul nekk ci collaboration boo xamante ni dafay colla dafay coopérer tubaab bi ci loo xamante ni luy lu lu tëralinu poids bi la déedéet. beneen poids bi mooy poids wu ceddo yi ceddo yi si dañ may dafa ci liggéey liggéey bu rëy ndax tubaab yi bi ñu ñëwee bi ñu daanelee buur yi fi nekkoon. buur yi fi nekkoon buur yi ñoo ceddo yi ñoo nekkoon te ceddo yi fu ñu nekk dana naan sàngara dana tëgg dana fecc. ceddo yooyu nag daw dugg ci kër sëriñ si. bi ñu duggee ci kër sëriñ si ñoo fa yóbbu ndënd ñoo fa yóbbu tëgg ñoo fa yóbbu lu ne. Cheikh Sidi Hadj Mal bi mu leen liggéey ci daram dàqu leen daf leen faa bàyyi. waaye comme que Thierno moom day lekk-lekk gu neex day naan naan gu neex day tëgg Maodo bàyyi leen ak moom waaye naqaril daaraam. cere joo xam ne cere ndox cere loolu cere mënu koo dund ñoom ñëpp ñu rocceeku moo tax Serigne Aline Gueye génn ko ko ni ko ataawa bi qaawa suudi. zulmun wa zulmatun. fa qaama bi sayfil hammi bil hazmi mujradi fa jaahada fiiha bi siyaasati wa nada wa ilmin wa xilmin fahtada kulla mahtadi sëriñ Babacar moomu nag moo ni ko lawlaa wujuduka fi zamani mu dellu ci li nga xam ni moom la wax yonent bi di ko lawlaa wujuduka yow Seydi Hadji Malick boo nekkul woon ci jamono bii amaatanaa dinañu rey atasul wusuuli marum àgg ca yàlla kon danañ mën a àgg ca yàlla te duñu ca àgg wa kasratu dawaraani danañ xëy di waraanu rek mais duñu am yàlla duñu gis yàlla duñu egg ci yàlla ndax si daal limaani gooy bi nga xamante ni ku ko gis wala ku ko xam sa lépp defaru kullu mri'in yaxwil muna bi liqaa'ihi wa liqaa'uhu yawman fa min xaddu maliki سن بابكر سنينا ولقاؤه يوما فمن عبد مالك كل امرئ يحوي المنى ndeysaan ولقاء يوم فبالعبد المالك الآخر وأن يرث الوليد بوالد فقر إذا فقد الوليد بشارك فلا رجال بمالك وكمالك سيداج مالك جاي تي واي ويغا ييكتي جيمي كو تي شيخ سيد الحاج مالك واي سيغ منصور دا فا نيكون فو ام سولو تي ديغنت شيخ سيد الحاج مالك اك واي تي ديغنت شيخ سيد الحاج مالك اك تياد بي ني بايل رك واو مامادو شيخ سيد الحاج مالك دا فا كو ييمي دا سيد الحاج مالك لا يعرف اهل الغباوات كو ku tilim ku narta am chance doo xamanteeg Cheikh Seydil Hadji Malick moo tax Cheikh Sidi Aboubacar ni ko kullum ri in cam soo gis te nar a baax cam soo gis te nar a am chance ëllëg day xamanteeg Cheikh Seydil Hadji Malick nee na cam soo gis man Babacar mën naa laa wax la nekk ca dënnam mooy yàlla naa xam Alaaji Malick yàlla na Alaaji Malick xam yàlla na Alaaji Malick nekk sama sëriñ yàlla na Alaaji Malick nekk sama yoon bu ma yóbbu ci yoonu yàlla kullum ri in yax wi dana làq المنا مبتو أدنى مك على خيرام ملقائه تدجك الحاج مالك ولقاؤه قم الحاج مالك ولا الحاج مالك ليس سيرين ولا غاي نجاوب شخص الحاج مالك فمن حط مالكي ما يو يالا لا واي دو تشول يارام دو ياي بغ مو نيك سي سيرين مو نيك سي سيرين يالا لا كو يينا ديف لا طالب شخص الحاج مالك سكاي كو نقاري خم لا كو نقاري واخ لا داك داكو نيان تا يالا نانغول كوكو جيرجيف سيداج مالك تي تي way yi nga xamante ni yëkkati nga ko wala abiyaat yi nga xamante ni tey yëkkati nga ko jëme ko ci góor gu tedd googu muy Cheikh Seydil Hadji Malick yal na yàlla dolli ko leer yal na yàlla sàmmal ñu njabootam yi nga xamante ni tey ñoom ñooy sunu bunt ci biir xadaraam waaye Seydi Serigne Mansour Diagne da nga nekk ci lancé bu am solo ci diggante Cheikh Seydil Hadji Malick taxawaayam ci diggante tubaab bi ak ceddo bi fexe ba ñooñu ñëpp mu xuus ci seen biir te dara xewul loolu nag mu lal daara lal xam-xam jiital ko ba lépp leer ci réew mi ba ci Afrique ba ci adduna bi yëpp kan mooy Seydi Hadj Malick ci diggante yooyu xam nga Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu neexulu xam jàmbaar la nitu yàlla la ndax ndigal li mu am moo tax moo tax Cheikh Seydou Bakar wax ko ni ko kullu mri'in yaxwil munaa bi liqaa'ihi wa liqaa'uhu yawman fa minhatu maliki ndax mooy ki nga xam ni mag ñee ko tànn su ma nee mag ñi nag yonent bi la Cheikhuna Tijaani Cheikh Alxaaji Omar moo tax Seydou Bakar ni ko kullu mri'in cam soo gis nit koo gis muy dem lenn rek mooy nekk mébétu xolam yàlla naa xam alxaaji Malick yàlla na ma alxaaji Malick xam waaye xam Cheikh Seydil Alxaaji Malick ولا نديك الحاج مالك موي سا سيرين نغا نجابوتام فمن حت مالك ما يالا واي دو تيونا يارام دغلا ندخ شيخ سيد الحاج مالك كوي ويرو ولا نغاي اوت سيرين ولا نغاي اوت كولا بوت يوبنا الله تي يالا بو دانيك شيخ سيد الحاج مالك امغا امغا واجا سيد بكر ني هما العميمان في دنيا واخره بير مبام نجاي الله موي كومم فيتوك خلايا خلاف لا دي بير مامو نجاي الله موي كومو فيتوك xale sëy da moo koy defal lépp nee na yow da ngay rëbbi ndawal rek nga bëgg yam nga ci mbaamu njaay àll looy doyee till sëriñ rek nga bëgg da ngaa bëgg ku la yóbbu ci yàlla da ngaa bëgg egg ci yàlla am nga Cheikh Seydil Hadji Malick looy doyee keneen huwa sanadu rafiixu wa zuqtifain ala sunani rasuli muxisi jaani huwa moom Cheikh Seydil Hadji Malick assanadu mooy wéeruwaay bi ar rafiixu ba di aji kawe wa zuqtifain boy wër ku xagn sunna yonent bi Cheikh Sidi hadji Malick ngay téye bu la rëccee amoo keneen ala sunani rasuli mu ri si yonent bi nga xamni moy mooy moy moy moy moy xétali ko nu tooñ Cheikh Sidi Hadj Malick moomu nag texe la sa'da man fi dahri la zu zëhrahoo in jundan min riyaasin qad sara lu waay iñaan iñaan ak loo naqari deret ak loo soxor soxor xam ni Serigne Babacar Sy moo bari xam-xam te mooy waaja dégg li mu wax saada man fi dëhri yaa saada man fi dëhri laa zo zero inna jundan min ghiyaasin qad sara way way tax mu dagg yaay mun aa daaji ni yaa ni saada man fi dëhri saada man fi dëhri si daaji Malick mooy texe képp ku nekk ci dëndu àdduna bi laa zo te wéeru zero ci ginnaaw Cheikh Seydil Hadji Malick inna jundan min qiyaasin qad sara ku wées a ginnaaw ci Cheikh Seydi El Hadji Malick gëmal ni ci ginnaaw Cheikh na Tijaan nga ko wéer ginnaaw gëmal ni ci ginnaaw yonent bi nga ko wéer gëmal ni boo dajeeg borom bi dana la gërëm ndax wax na ko ci ndakaaru gii ñëw mbooloo mi bari lool raj-raj gi bari lool mag yërëm ko ndax booba jàllaab bi dem na ba poñe ko góor gi ni ko a ah, góorug tukulóor gi sa jàllaab bi poñe na la de mu ne ko luy sama yoon ci jàllaab bi poñewu Mhm. man li yàlla ji bëggoon li yàlla bëggoon ci diinam ji defal naa ko ko li yonent bi bëggoon ci sunna defal naa ko ko mhm. bu ëllëgee ku topp ci sama ginnaaw lu sa mbubu takk takk takk kenn du la wàññi est-ce que garanti ba mu doon ut dëgg te yàlla may na ko ko mhm. atatawaddi yashkuru wa huwa mu'taribun mawdo atatawaddi yashkuru wa huwa mu'taribun moo tax ci fofu sunu mam di nga xamanteni moko yaral bopam mu jur sunu xalifa bii tey. maam Seydil Hadji Mansour. radiyallahu taala hu borom diine ni ya najla usmana ya sa'd al muridi. wa ya man indahu nujxu. wal yasaanu wal juudu. ya najla usmana ya sa'd al muridi. wa ya man indahu nujxu. wal yasaanu. هو الجنة فرض على الابن شكر الوالدين ومولاي والد البر يا أستاذ سلمي آه. يا سعد المريد ويا من عنده النجوح آه. شكر الوالدين موتي والد بر يا أستاذ ممنين باين سبحان وابني آه. باين وائد صمد بين عطوف آه. مغيث منه تجميل فرد على الإبن شكر حكيم ووالد رحم بر العطوف في من تدوينا فرد على الابن شكر الوالدين ومولى والد البر يا استاذ اني ابوه شكر القلب واثقتي وإن عجزت بالإمامة تعتيما وفرض على الابن وشكر الوالدين وموضي والد البر يا استاذ الله منصرني وبعد ما خبت وجه دهري منبسط لنا بفيدك والتيسير المسرور فرض على الابن إيه وشكر الوالدين موضوع والد بر آه. يا أستاذ مؤمنين بايا مولانا بفيدك بفيدك محمد منصورنا لنا بفيدك والتيسير مجرى لنا بفيدك بفيدك خليفة ببايا لنا بفيدك وتيسير مجرى سيد منصور سيد Mansour jërëjëf ci kàddu yi waaye ñu gis li nga wax léegi ci Serigne Babacar Sy gis li nga wax léegi ci alhaaji Mansour yal na yàlla dolli leen leer waaye gis li nga wax sànq ci maam Hadi Touré ak Serigne Alioune Gueye mu mel ni Seydi ci ci domaine bu nek ci domaine bo xalat ci walu xam xam-xam formé na ci nit tek ko lan moko may lolou xam nga Cheikh seydou El malik bokoy nat boko naté ci trois dimensions yi da ko fa fekk boo nattee dimension intellectuelle am xam-xamu Cheikh Seydil Hadji Malik waxuma la djoudom waxuma la wilayam waxuma yam mayam waxuma la cëram waxuma la yooyu yëpp mais bo génnee dimension intellectuelle am sauver Afrique mën sauver la planète Terre je te dis wallahi wal quran azim est-ce que Cheikh Seydil Hadji Malik boko naté ci dimension euh, mystique am mhm. dina ci ñew boko naté ci dimension éthique am moral

ben bi day tafsir mu wax baat firi ko ci alquran nit ni ko nga mu ni ban ban ban tafsir nga amé mu ni tafsir sangam la mu ni ko téere bi dafa juum mhm. benen bi moy day jangal talibem diko jangal fan matière ci sire bi sallallahu alaihi wasallam. téré bi fekk téré bi du téereentu parce que téré bi nit ñi dañ ko xeeb waaye téré boobu ni koy gis sax bariwul di ko jàngal xuratul absar di ko jàngal góor gi Ahmad Karim Gaye ab téré la mu koy jàngal béyki ci gàtt yonent bi am téré bi fekk benn gàtt bu am ñaari tour mu defee ni ñaari gàtt la Maodo ni ko téere bi dafa juum wax ko borom téere bi dafa juum daa koy daa ni bi xawsatin duayat aw xaysatin yamanun shaatun lahu qamarun hudat fala tahimi loolu mooy sababu mu dugg ci fànnu matière boobu taalif ca taalif boo xam ni kenn dootu ko taalif muy xilaasu zahab mhm. nga xam ne Cheikh Seydi Aboubacar bi nga xamante ne mi ngi ciy def taxris mhm. taxris mooy nga def way wu rafet am kuy defaat beneen way ngir tagg way wa Seydi Aboubacar bi ñu ciy def taxris mhm. génn ku na ca loolu ni ko absarta محكم الرمي الشهمي يشهد جاء كتابنا حرة الأبصار إذ عسرة نكو أبصار تدن نلغا محكم الرمي الشهمي دن نلغا يو دو دن دن ياسين دن أبصار تدن نلغا محكم الرمي الشهمي خرنيوك أجي ساني جي فت نينا ساني كتو فلش بو ديري لا خمني مبلي جم دوكو jam du ko moy mukk ne cheikh sidi hadji lu masala sori sori sori sori sori sori ba du Cheikh Seydil Hadji Malick xarañ na ci dajji masala moomu. dëgg la wa kullu fannin. mu ni ko nag yow bàyyi kullu fannin bi ngay taalis sa téere boobu di xilaasu zaab waaye demal ca kaw neel yaa man ataa demal ci kaw neel yaa man ataa bi xilaasin faayiqin يا من أتى بخلاص فايخ دررا يا من أتى بخلاص فايخ دررا يا من أتى بخلاص فايخ دررا يا من أتى بخلاص فايخ دررا قد جئت ما يعجب السودان والغرى قد جئت ما يعجب السودان والغرى زينت مصدر على خير البرية من على خير البرية من قد أنزل الله في حمده السورة يا من يوم يا خمني ata diki ngënu ata inil ngënu bi khilasin ci khilasu za bi faayi mudi mu de aji kawe duraaran wurusug duru khat ca deug deug Cheikh Seydi Hadji malik ji te diki ngënu ma lo xamni tere bo xamni te ni nga ko fi yoji bu dana yem l'Occident yoji bu dana yem l'Afrique de l'Ouest yoji bu dana yem al as suudaana nit ñu ñul ñi wal xuraana nit ñu wex ñi zayante rafetal nga ma ala al bariyati zayanta rafetal nga mas nan tagg ala xeyril bërit ci gën ji mindeef gi man mooy ki nga xam ni xat andala te dëgg-dëgg wàccee na allahu yàlla fi am daax yi ci tagg ko sooran ay saar wa malike def leen ni wa kullu fanin eh ñëwaguma ci wa kullu fanin qad anzala allahu fi am daax soora fi am daax soora xat ca dëgg-dëgg anzala wàccee na allahu yàlla fi am daax yi ci taggoo soora ay saar nuun wal xalami way naka la ala xuluqin azim yooyoog yooyu inna fatahna laka fatahan mubinan ليغفر لك الله ما قد ما ليغفر الله لك ما تقدمت من ذنبك وما تأخر ويتم الله نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا alam nashrah laka sadrak saar yooyu yëpp yàlla def ko ngir tagg ci yonent bi moo tax mu ne ma dax na moo tax mu ne narumu sana al mustafa baadama ata sanaun min alhadi alayhi jamilu qad anzala allahu fi amdahi suwara qad anzala allahu fi amdahi suwara

ci yonent bi la défier tout le monde ni leen yaa xaayisal bahri lil asdaafi indiya asdaafun biha duratun ala min al jalami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngale ko ci tëral sunnaam ci wax nit ñi mooy kan maa ko maa ci raw ñëpp sëñ Mansour yaa yaa xaayisal bahri lil asdaafi indi asdaafi kooku responsabilité boobu dëgg la Seydi Hadji Malick jël foofu dëgg la loolu foog nga taxaw ci mhm. wax li tax sañ-sañ bi uh-huh. pour mu mën a taxaw wax loolu uh-huh. ne yow mi bëgg xam yonent bi mhm. jarul yéeg ci avion mhm. jarul jaar ci gaal uh-huh. jarul dugg oto utu ko fen fekk ma fii ci tiwaan ma branché la ci moom ndax li tax mu jël responsabilité boobu ci biir xilaas daa ko te fekk ndax xilaas boo ko dooree boo ne alhamdulillahi dil ijaadi wal xidami mu mi dinaa bi wujudil badri dil xadami suma salaatu wa taslimun yafuqu ala miskin warandin ala dil fadli wal xadami wa alihil muhtadinal xiiratil kurama almutami siiratil muhtéeri wal xadami wa innahu maa racda racdu wal warqaaw tanxibu min hadiliha wajara damcum min alqawalimi in alcaalima caaliha wa saafilaha ashiatun talacat min afdali nasimi wa innahu ida arada allahu nashata xasana abaana mi nuuri yi nuurana bil almi foofu la xilaas dooree boo jëlee wa innahu id arada allahu nashatana abaana mi nuuri yi nuurana bil alami foofu la xilaas tàmbalee nga gis mu commencé waaw mhm. waaw la commencé wa innahu jeexee miim du 46 كلاس جيخ ومن الحمامة رأس القبر يبدأ من وجاهة الرأس ثم القلب ذو الدرم كرو بيغا خامتان دنج نان يونت بي صلى الله عليه وسلم بلال ابن رباح ما مودي تي بامل با جيل ندوخ ديكو تي ويس سيداج مالك wax nako mu jeex mu jeexee wa in wabnul xamaamata jeexee mim du 46 46 plus 46 du 92 92 mooy Mouhamad lu ci xaw ma wax la ko jërëjëf yaakaar naa ni fii ñu dugg tey buñ doon wax ba suba du jeex te fukki minute rek moo ñu dese léegi nag ci réew bi fi ñu toll. tey euh, sëñ Mansour Diagne. Mhm. buñ doon ñëw ci solution yi nga xamante ni Seydi Hadj Malick proposé na ko. Mhm. pour ñu am apaisement. Mhm. pour ñu am dal. pour bu ñu xëccoo sax ñu xëccoo ci yiw. xëccoo ci teraanga. ba ñëpp gis seen bopp. ñu mën a avancer. ci xam-xam. avancer ci côté social. Mhm. avancé ci dimension yi nga xamante ni rek réew mu ci tegu. Mhm. dina tegu ci yoon. Mhm. ñëpp gis ci seen bopp. tey lan ngay jukki ci njàngale Seydi Hadj Malick jox ko ñi nga xamante ni ñooy citoyen sénégalais yi. xam nga njàngale Cheikh Seydi Hadj Malick Mamadou. njàngale Cheikh Seydi Hadj Malick dafa leer. ndax moom dafa samp xam-xam. ndax Maodo. dafa nangu bu fekkente ni ci wàllu euh, euh, li nga xam ni moo waral débat. débat intellectuel. daf koy poser. boo demee ci mbindam da ngay fekk dalay sànni ay référence mm-hmm. ni la demal gëstu gi mm-hmm. kon kooku daganal li li tudd le débat contradictoire effectivement ndax débat contradictoire mooy débat d'idée. dëgg la débat d'idée nag kurfañ du jub. débat d'idée yat du jub. débat d'idée fetal du jub. débat d'idée xam-xam la. dëgg la ba ku nekk convaincre sa sa morom. farjia julla kut bihimi. macha allah ku dem ci midam da nga ko ca fekk da nga ko ca fekk. te lii mooy samp xam-xam. mooy dafa lancer benn défi. notre temps. parce que dafa ne ala ya bani hada zamani. daawtukumu. li ixyaai diinin. bil ulumi ajibu. dama leen a benn défi. Mhm. aux gens du temps. Mhm. pour que ngeen dundalee diine. Mhm. bil ulumi. waxul bil ilmi. mais daf ne bil ulumi. parce que forme de connaissance yi. bari na. mais source bi c'est le Coran. mooy alquran. te alquran yonent bi la. te ñun ñëpp ñoo bokk yonent bi. dëgg la sallallahu alayhi wa sallam. bu nu àndee dellu ci source bi te mooy alquran. déggin yi mën na wuute. Hmm. mais su fekkente ni xam-xam moo ko lal. Hmm. ñëpp daan déggoo. dëgg la te dundal te dundal xam-xam. Hmm. mooy dundal diine. moo tax mu ne li ixyaa i diinin. bil ajibu. loolu nag mu posé ci ay débat. bind ci. parce que daf ci bind. li xew tey ci wàllu shari'atul muhammadiya. def ci bind. wax naa la fan yi gën a jafe. ci si dañ bal ngay sekk mu taalif ko. arab taalif na arab branche la buy jàngale way. moo ci taalif. taalif na ci miraas branche la buy jàngale fiq miraas lay jàngale kaw ko bul munir taalif na ci naxu matière grammaire taalif na ci waaye li ci dàq moom Cheikh Seydi El Hadji Malick mooy li nga xam ne taalif na ko ci kifaayatu raaxibiin nga xam ne li ci indi ci référence nga xam ne moom nangu na dialogue nangu na débat d'idée nangu na débat contradictoire parce que xam ne ni moo mën a bijji xam-xam bu tegee ci rek wax li nga xam ne moom nga xam dëgg la kooku daf ko yàgg a posé bind na ci chariatul muhammad yi waaye bind na ci xaqiqa ndax ku liir ku liir ifhaamul muntiril jaani da nga xam ne Cheikh Seydi El Hadji Malick nangu na yooyu yëpp te da koo posé posé ci ay acte bu nangu woon violence xam na ni violence amul résultat dëgg la kon mu utiliser ko ak tubaab yi mais li am résultat mooy jiital xam-xam jàngal nit ñi ba yee leen yee leen ci fànn yëpp. doog leen a tëral ndax nit boo ko yeewee ye boo ko jàngalee yeewi nga ko. moo tax mu ci mbindam da nga fekk ala nabbihul atbaa. yéen sëriñ si yee leen seen taalibe yi. wax na ci fa taalimuhum fardun. walaw bi ijaaratin. ah mu ne yow boo leen mënul jàngal yow sëriñ bi. amoo temps. wala sa xam-xam sax eggu ca. ndax Sénégal ngay gis sëriñ boo xam ni. amul xam-xam. amul benn xeetu xam-xam boo xam ne am na ci moom. mais sëriñ la. dañ koy nangu ndax aada ji. waaye nag bu mu tax yow si daañu bari nee na da ngay fexe yow ba sëriñ bi. boo amul xam-xamu jàngale. wala sa jot mayatu la jàngale. del fay ñu leen jàngal. dëgg la fa taalimuhum fardun. walaw bi ijaarat dootee da ngay fay ñu leen jàngal. jërëjëf sëñ Mansour yaakaar naa ne li des ci waxtu bi bariwul te li ñu bëggoon nga indi ko yëpp xajul fii. waaye dinañ ko topp nag benn par benn ndax yoonu daayira la ñu wax mooy loo xamante ne dañuy dox jëm ci ngir génnewaat mhm. li nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi mhm. te dinañ ko def nag ci ci mag ñëpp mhm. niñ ko defee tey ci Seydi Hadji Malick def ko ci tarixa bi noonu lañ koy defee ci keneen def ko ci yoon ba nga xamante ni ca la bokk ndax dañu wax ni mbaax foo ko fekk soo ko dàkkee rek mu ñibbi kër yonent te fépp nag am na mbaax mhm. dañu ko euh, pérenniser wul mhm. dañuy dem ba ci biir ñu dagg ko defal suñu yëfu mhm. bopp lool nag loolu la émission bii di jariñ mooy génnewaat li nga xamante ni mooy delloo nit ñi ci xam-xam delloo nit ñi ci débat yooyu nga wax muy débat d'idées waaye ñu bañ a privilégier li nga xamante ni mooy la médiocrité ba ci suñu politique yi nañu dellu ci débat d'idées dellu ci débat contradictoire su boobaa dinañ dem ci local dem ci présidentiel xam xam-xam falu bu xam-xam faloo réew yëkkatiku waaye bu xam-xam wàccee réew daanu te loolu mag ñi xam-xam la ñu faloon lool moo tax Seydi Hadj Malick mhm. résultat baa ngi nii tey ngay gis un jeune mhm. boo xamante ni mhm. juriste la muy Mansour Diagne mu toog tey di càmbar mbiru Seydi Hadj Malick di ko teg ci xam-xam pu leer te tey bu ñeneen ñëwoon am leneen lu ñu gëm ñu dugg ci débat yàlla dina def xam-xam dina génn boo xamante ni dina mën a jariñ réew mi réew mi nag foofu la toll kon dañu lay bàyyi rek nga joxe sa kàddu yu mujj ñu bàyyi sëriñ bi tëj ñu def tàggoo boo xamante ni. du mhm. tàggoo incha allah. ah sëriñ. waaw di di leen jaajëfal rek. <laughs> ndax euh, ñun ay njaboot leen ay taalibe leen. ay taalibe sax lañ bëgg doon. ci xadara Cheikh Seydi El Hadji Malick. Mhm. xadara mag ñi. macha allah di ko ñaan yàlla. di jaajëfal tamit fa ñu jógee. ndax euh, di Malika. nga xamanteni wax dëgg fa yàlla tarixa bi daayira yàgg na fa ndax turu daayira bu mag ba fa nekk Serigne Babacar Sy moo en 1943 ko mag ñi suñu mag ñi doxal Serigne Mansour ñëw na fa Serigne Cheikh Al Maktoum na fa Serigne Al Amin muy suñu bàyyi di suñu lépp mag ñi boole ñu di di itam di nuyu itam suñu soxna macha nga xamante ni soppi Cheikh Seydou Aboubacar Sy la di soppi Serigne nuyu bu baax ndax wax fa yàlla Eh, sama turandoo Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji moo daan wax naan jigéen ñi ñooy kirij ba yàgg mu ni moom ñoom ñooy lengee mm-hmm. kon ñu nuyu ko bu baax di soxna faatu macha allah mm-hmm. ñu bégge ko macha allah di ziar suñu kilifa ñu am foofu yëpp mm-hmm. macha allah di bégge ñëpp di bégge tamit suñu suñu mag suñu président Serigne Abdourahmane Sarr Pay nga xamante ni wax dëgg fa yàlla suñu wëlëre la ñu bokk benn bàyyi macha allah di Serigne Abdou Aziz Al macha allah ñu di ko béggee di béggee fédération des daayira Tidiane de Dakar et banlieue yëpp di la béggee yow tamit Mamadou di la ziar wax dëgg fa yàlla jotaay bi ñu ko bëggee léegi na mais a dogal macha allah ñu ngi leen di baax macha allah di ziar tamit mbokk yu tedd yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom di xaaji Malick Jéey di ko mm-hmm. béggee macha allah di ko mën tagg yonent bi mm-hmm. di koo xamante jàmbaar la di koo mm-hmm. xamante ni itam wax dëgg fa yàlla ku sellal li muy def la ci tagg yonent bi ndax tagg yonent dañ koy sellal di ziar mbokk mi di aale bay aale Ndiaye di ziar tamit sëriñ mbokk sëriñ Assane Seck macha allah di leen béggee macha allah jërëjëf xaaj Mamadou jërëjëf sëñ Mansour kon ñu ngi leen di wax jazakumullahu ana xayran la tey seen télévision Malikia TV leeru Maodo indi woon leen ci li nga xamante ni mooy seen émission bi nga xamante ni mooy yoonu daayira ñu jëlee ko nag ci li nga xamante ni Serigne Babacar si waxoon na ko muy sunu diine nga xamante ne yàllaa ñu bind te bu ñu fi jëlee du tàggu kenn mu dégager responsabilité ni sunu tarixa daal di bind ne xat jaa ana fulxul na ci ni sunu métier. Mm-hmm. ndax gor su nekk war naa góor si dara. ngir ngën a sàmm dignité. Mhm. ni sunu daayira Cheikh Tidiane Sy ne ce sont les clubs mystiques où se forment continuellement comme nous, mu ko waxee sànq les athlètes de la religion et qui dit ah. athlète dit compétition compétition si lan. fastabihu bil xayraati illallah compétition si lan njëkkante jëm ci yiw waaye nag ni suñu yoonu Tiwaawan uhuh. muy source ba nga xamante ni uhuh. plusieurs affluents yi tas adduna bi fa la ñu jóge uhuh. waaye méritu affluent mooy boo demee ba war a bekkoor nga dellu ca source ba source ba mooy fan mooy Tiwaawan mu tënkal ñu juróom yooyu émission bii nag jóg ngir feddal loolu fi mag ñi bàyyi woon tudd yoonu daayira mm. fas yéene nag dalal daayira yépp yi nga xamante ni ñoo ne si Sénégal mm-hmm. ak tarixa boo ti bokk incha allah dinañ la dalal fii ngir lan ngir feeñal la nga xamante ni mooy ngëneelu yoon boobu nga xamante ni fa nga bokk ngir lan ngir nëbb li nga xamante ni mooy la médiocrité mooy li nga xamante ni moom lañ bëgg a jël mm-hmm. liggéey mm-hmm. bi fi mag ñi bàyyi woon ñu muur ko feeñal la folklore bàyyi li nga xamante ni mooy quintessence bi ak essence bi nga xamante ni moo taxoon mag ñi di sonn seen diggante ak yonent bi moo taxoon mag ñi di sonn seen diggante ak seen borom ba ma ña feeñal tey loo xamante ni dootul fay dootul yàqu nit nag mën naa wax ba yàqu mhm. waaye mënul wax ba yàqu kon ñu bàyyi El Hadj Malick Dieye mhm. mu tëj li nga xamante ni mhm. mooy jataay daayira bi tey خليل يا عجاء وانزل للمتيان to our